Anta Diop ci parti politique yi nga xam ne créer woon na ko relation bi nga xam ne amoon na ko ak ki nga xam ne moo fi nekkoon président woon di Léopold Sédar Senghor naka la menoon bu ko defee ñi toog di seetaan xam itam kan moom mooy Cheikh Anta Diop à part li mu doon historien ak yeneen ya ca Lambo am na beneen pàcc boo xam ne itam doon na ca yëngu. Mhm. déglu leen ma wax ak it ndax naa ni réew mi laa bëgg ndax naa ni réew mi laa bëgg ba lépp di benn xol yi di benn jëmm yi di benn wax man doon benn waaye xalaat na rafet moom ba lépp di benn ci waay ndaa ni réew mi laa bëgg way ñetti fan la li mu yàgg yàgg na billaay def dafa am defantu dafa am defandoo dafa am bu ca gën mooy def ni borom gaan ana bu ca gën mooy def ni borom ceyto jërëjëf seyante jëf waaw fii sa ne u fee jërëjëf laataan ñu ñëw foofu sax yaa ngi doon euh, waxtaan ak moom ci lu am solo ci biir université la ci jot a xew itam. absolument ak euh, différence bi na ci. Mm-hmm. xëccoo beeg xuloo bi ci diggante ministre ba. Mm-hmm. ak euh, waa SAES laataa ñu ñëw ci Léopold. Mm-hmm. da koy broncer rek. très bien parce que sëñ Ndiaga. Mbay yal na ko yàlla yërëm. sëñ bëgg yàlla mu ngi ko doon wax léegi. àdduna moom des fois. wax ji mën naa bañ a doon benn waaye na xol yi di benn euh, jëmm yi di benn ndax mm-hmm. université ñu dippee ko Cheikh Anta euh, fan yi dafa am crise bu ngeen ko mm-hmm. xoolee mm-hmm. crise ba mooy euh, autorité nguur gi état bi ñoom nee nañu gone yi dañuy jàng mais jàng virtuel maanaam euh, aajootul ñuy ñëw ci université ba. Mhm. Euh, di teew pour mhm. jàng mën nañoo des seen i kër. Euh, di jàng mu ñuy tuddee en ligne quoi. Mhm. mooy e-learning ah jàng bi en ligne xale yi nag ñoom jàpp nañ ni jumtukaay matewu ko fépp. Ah, yemba ni bi aussi matewu ko fépp. ba nga xam ne ñoom daal bu ñu amoon lu leen gënal dañuy jëlooto daagu ñëw ba l'université jàkkaarloog seen i. maître ñu jàngal leen waaw après ñu dem mhm. euh, ñay jàngale tamit ñoom loolu nañu namm ñoom mhm. ñoom it bu ñu sañoon euh, ñoom dañuy ñëw ci lu l'université mhm. dajeeg seen i ndongo euh, jàkkaarlook ñoom jàngal leen lañ leen war a jàngal ndaxte na yëf ya yembadee ca étudiant ya ci affaire technologie yooyu ñoom it la dee ci ñoom daal ñoom seen vocation daal mooy ñu jàngal ndaw yi mais nag état bi moom bëggul loolu kon donc ñu ngi leen di ñaan rek ko sëñ Ndiaga Mbaye waxee ca wayu ma mhm. euh, nañu jéem a waxtaan rek bu ñu waxtaanee euh, danañu gisee danañ jubóo danañu danañu gisub yoon quoi mhm. effectivement xam nga Cheikh Anta mhm. euh, Diop le savant dafa mel dem ba suul le politique te ma yaakaar ni réew mi fi mu toll nii su fekkee ci dimension Cheikh Anta yi ñu gën a soxla ci fi réew mi toll nii mooy sa dimension politique. Mm-hmm. ndax te Cheikh Anta ba mu fi nekkee ak ñoom Senghor xeetu politique ba ñu doon politique xaw na wuute tuuti rek. ak bësoom ak jamono ji mm-hmm. mën na am nag jamono day dox. Mm-hmm. ndax euh, jamono moo bindoo noonu. Euh, jamono ju nekk ak la cay xew. loolu la ñu wax. Euh, jamono ñoom Senghor. dañu doon politique naam mais la conflictualité diffuse maanaam coow la naka xam nga dëgg-dëgg du woon jógal ma toog. Mhm. ci siis bi mais xam-xam nees nañ jëlee Sénégal soppi xar kanamam. Mhm. ba jëlee ko fii yóbbu ko fee. mais du woon rek lu pouvoir en soi. Mhm. ak la muy làmbooy la muy làmboo ci ay njeexital. ce qu'on appelle les avantages ak privilèges. loolu intéressé wu la yoon. du woon rek. conquête du pouvoir politique. Mhm. pour falu doon buur. Mhm. Mhm. mais dañ doon conquérir le pouvoir politique. pour soppi dund ni askan bi. soppi xar kanamu réew. ak tamit xam richesse bi nekk ci Sénégal. Sénégal nees na koy jëfandikoo Cheikh bokk na ci ñi nga xamante ni. Sénégal xale yi nga xamante ni tey du jël gaal gi. di dem. suñu dégloon njàngaleem Cheikh Anta. gëstu maam gëstu Cheikh Anta xam richesse bi am Sénégal. du ñu toog fenn dañuy xam dañoo xam ni. li nekk Europe. lu ko raw a nekk fii suñu jafe mhm. dëgg la est-ce que xam nga loolu. dëgg la est-ce que xam nga ni. Mhm. ku xam ni. Mhm. Cheikh Anta Diop bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo xam ni Af Afrique moo gën fuuf. Europe tout à fait te loolu nag dañ ko war a jàngale xale yi. nga xamante ni tey ñooy jël gaal gi. ay junni nit di ci dee. te mën a toog dëkk ba ñu dëkk. recherche boo xam si ne am fa Cheikh Anta Diop wax na ko. Mhm. jàngale ko. Mhm. xamle ko ñu jël recherche boobu njariñu ci njariñu goo xam si ne tey Séné Sénégal wala Afrique day mel ni Europe. Ah, dëgg la mais loolu lépp ñu dañ ko fi bàyyi. dañ di loo xam ne. ñun mhm. am nañ ay mag ñoo xam ne wax nañ ñu ko. jaarale nañu ci yoon wi. jàngal nu ko. mais loolu lépp ñun dañ ko jël teg ko ne. topp tubaab bi. te suñu mag ñu baax ñi. ku mel ni Cheikh Anta Diop jàngal nu ni Afrique. moo gën foofu Europe. la. li nekk Afrique nekkul Europe. tey jii ba ci suñu gouvernement yi li ñuy jëggaan yi dem di ko jëli ay Europe. Mhm. Mhm. ay di jël ay marketing ay ay société Europe. di leen indi fii Sénégal. Mhm. tey lu ko rawat ci Sénégal. dëgg la c'est vrai loo xam ne wóor ñu dem jëggaan yi fenn lenn. c'est vrai loolu lépp nag seexanta jàngale na ko. la dëgg la ci doon yokk rek. jërëjëf Mbaye laata sax ngay gën a xiw ci ci leneen. bëgg naa ñu taxaw tuuti ca université. Euh, bronché nga ko sànq ci li waral crise bi. bëggoon naa conséquences yi laata ngay proposer maanaam solution boo xam ne tey bu ñu ko defoon crise bi dina jeex ak yi ya fay jot a xew itam jeex fa ndax itam université ku ko wax itam la fay jot a xew ñu bari nag ñu ngi naan li waral crise bi moom mooy ci élection présidentielle yi ñu jëm ak jëm ji nga xam ne moo fi nekk tey bu jógee ña ci des jóg président lan moo waral crise bi nga xam ne am na ci université bi waaw xam nga li dal université bu ma ko doon jàngat. Hmm. dama naan conséquence la euh, en fait conséquence la en hmm. fait moo tax ñun ñëpp war nañoo góorlu ba ay année blanche ak année invalide du am. Hmm. ndax euh, maa ngi fàttaliku ñun ba ñuy ñëw université ay année quatre vingt quatorze quinze. années yooyu ci lay université commencé di. am ay problème problème yi amoon dans les années quatre-vingt-dix moo dab tey université xam nga lu taxam d'abord bokk na ci benn problème ci université mooy effectif yi maanaam dañooy dem ba mu gi l'université la mu yenu attanatu ko maanaam mm-hmm. capacité d'accueil am mm-hmm. da koy romb bu yàgg xam nga ab kalando bu baree ba bari ñeenti nit lay mën a def mm-hmm. <laughs> boo ci bëggee def fanweeri nit nag moom <laughs> <laughs> carrière carrière. Hmm. mais da ngay gi ñu def. mais xoolal comprendre nga xam nga. boo yëppee ba mu fees ak looy loo jot yëpp cax. xam nga euh, fu mel ni université war nañu saytu ñu fa dugg. dëgg la jàng école euh, université la boo xam ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk. Hmm. waaye tamit saytu dafa baax. Hmm. segg dafa baax. université dafa am lu ci rax. Mhm. phénomène tamit am na ci. waaw phénomène mooy la ca rax. waaw te euh, mm. Mm. bokku ca. am na luy ñuul ci sol loo xam ne bokku ca dañ ko cee war a génne. ñiy jàng ak ñiy raas la dëgg la dëgg la euh, euh, li mu wax am na solo ah, mais comme li ngay wax rek xam nga conséquence moom. xam nga sabar bu tas. Mhm. daanaka lu ne da cee mën a. léegi nag loola ngay wax ne. Mhm. Euh, ba sabar ba tase hmm. ca la ku ne faqee ca làng ga. ba tax loolu sax mën mën caa am waaye euh, point de repère historique. Hmm. bi tax problème yi am mi ngi jógee ci année 93 94. Hmm. xam nga li jig université euh, mooy at bu jot ñu jàng normalement. ñiy jàll jàll. pour mën a bàyyi place. ñiy ñëw ñëw ñëw. mais bu fekkee ña fa nekk. dimuñu puusuñu. te am ñu ñëw ci ginnaaw. te loolu ñu vivre ko ñaari yoon. Mm-hmm. année blanche ba 88 ak année invalide ya la ñuy tuddee année invalide. 93 mm-hmm. euh, xam nga 94 la woon. Mm-hmm. maanaam waa université puusuñu ndongo yi ca gannaaw ñëw ña am bac ñëw. maanaam classe bu doon def fukk exemple yeneen fukk ñëw. ñu doon ñaar fukk te classe bi fukk la mën a jël. léegi système boobu dem ba ñuy commencé am ay effectif pléthorique première chose ñu dem ba mujj gi grève yi du ñu matal lu ñu tuddee quantum horaire mm-hmm. maanaam dañuy wax ne at bu ne exemple war nga cee jàng fukki waxtu su fekkee da nga cee jàng juróom benn waxtu la ñuy mën a def mooy ca at ba lay ñëw ñu téq ci ñeenti waxtu yu des mm-hmm. taf tafal ko fi mu mat fukki waxtu mm-hmm. léegi ñu dem ba muy am ay chevauchement dañuy nekk ci 2023 ndeke ci université ña nga ci 2021 ndax tardé ba ñu tardé ak yooyu dees nga matal lii pour dem mhm. troisième conséquence bi mooy euh, loolu responsabilité état la mhm. ndax euh, université euh, moo tax gouvernement Macky Sall def na ci am solo quand même mhm. université boo xoolee nañu ko tapexoo woon te na mu juddoo daanaka toog na yee at yu bari surtout régime parti socialiste defaruñ fa dara tabaxuñ fa ci campus pédagogique bi ay classes yoo ulay envie yu xale yi war a mën a jànge tabaxuñu tamit campus social bi ay néeg ay kër yu xale yi war a dëkkee. c'est-à-dire que booy def management public. da nga sóor ni tey de fukk la waaye mën na am ñaar ñaar fukki at yi di ñëw danañ doon fanweer. kon donc yow fii ak ñaar fukki yan yi at bu ne war ngaa mën a teg dara. teg dara pour prévoir pour prévoir loolu. Mm-hmm. fii na defuñu ko dañoo xëy suba rek yëpp yëpp ni màbb di ñun. ñu koy jéem a dabb. Mm-hmm. loolu mooy jox image yu. lu loi yi def gars yi duñ ko gis. ndax stock bi ñu war a épurer moo bari. mais mhm. Macky Sall mi ngi de effort Macky Sall def effort yu rëy. université liggéey bi mu liggéey Sénégal kenn aussi bien péda campus pédagogique. Mhm. kii bi dabu bi sax dem na ba mu jigi mhm. ñu leen defaral loo xam ni euh, moo tax dem neen. mooy mooy capitole yi. Euh, maanaam euh, yi Touba Bache di def ak yooyu. moo du lu gën sax ci université. mais euh, moo tanep neen. Mhm. que bu fi amoon boo demee campus social gouvernement mi ngi fay tabax ay kii yooyu kon donc on a connu beaucoup de retard. Mhm. en termes de mise à niveau et d' accompagnement xam ni livre day màgg. Mhm. te su màggee. ku yokk cere xam nga yokk. yokk ñeex yokk ñeex. ba ci sax enseignants yi. ba ci ba ci enseignants yi tamit pendant longtemps. Euh, dañu manqué woon trop mais léegi nag ñu ngi koy euh, résoudre. Mhm. parce que bu njëkk ba l'université ndakaar rek la amoon. Mhm. Euh, dañu dem ba ay années quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze. Mhm. ci nañuy doog a ubbi beneen l'université ca Ndar. UGB léegi nag toog nañu at jamono yu bari Dakar rek mooy jël. Sénégal xoolal fa ñuy jàngee quatorze régions yëpp. ñëpp dañu ñëw wàll si ci université. Mm-hmm. léegi nag ba ko nguuru d' abord Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade. Mm-hmm. mais ki ko jëmmal dëgg mooy président Macky Sall. Mm-hmm. mu comprendre ni lii dootul mën a wéy. il faut que nag ñuy ubbi ay l'université ci région yi. Ah, boo gisee ñu ubbi après Ndar. mu voilà mu taqarnaase. te voilà te noonu la war a demee. tout à fait euh, mais la muy taqarnaase tamit ñu. espécialisé leen. Mhm. xool ñii ca façon njàngeen bi. Mhm. loolu euh, vraiment Macky Sall def na ci kii bu am kii donc pour le moment dañu xaw a manquele ay jàngalekat. Mhm. c'est-à-dire que rythme bi ñuy ubbee l'université yi. Euh, rythme boobu tamit nañu war a former doctorants yi ñi def doctorat ñu génn ñu leen di bant parce que li ngay gis mooy daanaka euh, ñii dañuy jóge Ndar dem Ndakaaru. bu ñu jógee Ndakaaru dem ay bamba et cetera. Mhm. mais ñi ngi ci ñi ngi ci progression bi. c'est-à-dire que jafe-jafe yi ñuy dund nii. Mhm. Euh, ma terminer nag bi ci ma Diop doon wax. Mhm. ndax euh, l'université. moom daanaka noonu lu juddoo. en fait maanaam c'est un lieu de contestation. d'accord maanaam wax ak histoire ak xeex ak yooyu moom moom noonu la juddoo. mais if des na ko canaliser tamit. mais manque canalisation bi moom moo xaw ba des xam nga te bu njëkk ba l'université euh, daam daan nañu am taxawaay ci nu seen réew di doxee ak les nouvelles idées mm-hmm. université daanaka mm-hmm. boo bëggoon xam mm-hmm. réew mi fan la jëm demal dugal université dana la jox tendance yooyu mais la doon def yooyu yëpp tamit bàyyi woon nañ cër njàng mi d'accord jërëjëf président maintenant léegi nag moom dañu dem ba politique ba te loolu daanaka mi ngi commencé ci président euh, en euh, depuis régime socialiste mi ngi taxar naa si cest à bi dafa dem ba am doole trop trop te politique nag moom euh, des fu mu dugg rek. Mhm. noonu lay donc vivement que Cheikh Anta redevienne euh, le temple du savoir. Mhm. ou tey jii. suñu gouvernant yi. Mhm. bu ñu demee ba xaw a jaaxle ci fu ñu jëm. dañuy dellu soit université. dëkk boo dem ba ci Amérique ak yooyu. Euh, ba ci France. bu réew waree développé. Euh, xalaat ba wala pexe ba ña ngay dem.